kii kon gis ngeen Reug Reug gis ngeen ko ci saal bi gis ko ci biir këram mu génn gis ko ci géej gi ak mbaar mi champion bëgg naa la. waaw fay naa la. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani yàlla julli bi waaw di di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla na leen yàlla xaare àjjana firdawsi di ñaanal sama yaay yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam kanam waaw. di sant yàlla bu baax baax di nuyu sama papa yi ñu fi fekk nii ku si mel ni El sama papa yi yëpp maa ngi leen di ziar nekk sa tur ak sa sant waaw. fii nga toog lu muy def si boo fi toogee nii ci mbaar mii wan géej gi ginnaaw nii mbaal yeeg gaal yi la lan lan lay def si yow. mais du ma def dara ndax fii laa dëkk fii laa juddoo fii laa yoroo lu <laughs> may defee dara du ma def dara. maanaam lu si yëg quoi laa bëgg a wax. waaw fierté rek. waaw nit ki sa gox boo si jógee kenn kay fierté loolu rek laa koy loolu rek laa si yëg ah. dama ñëw si ñaari mbër yu dëpp Pikine muy Ama Baldé Ama Baldé da nga bëri ak Reug Reug ak Gris 2 ba pare léegi Nicolas annoncé ne bu bëggee mu jox avance ngeen bëri man ma seeti Ama Ama mu ne léegi day bëgg a def sans repos rek mais ku ne xam nga ki nga war a bëri ça veut dire que dafa mel ni moom parewul ngir bëri ak yow wala boo xalaatul est ce que du daf la xaw a dépassé. waaw mooy li wax rek instant bi may wax ak yow Reug Reug ku nga bañ ci làmb rek war ngaa wax yan sart nga ko mën a bañee ñoom lu ñuy indi si làmb moom laay indi. fu ñuy dugg fu ko raw laay dugg ëpp ñu ma doole dàqu ñu ma bëre. ba ci Ama Baldé. ñëpp laa la wax làmb ji bàyyi ma min def bàyyi ma kenn ki ka daggee yaawu jàll ba si Modou Lo waaw. Ama Baldé da ngeen da ngeen mos a daje ci ay din. mos a ñëw daje ci aw din kay. da ngeen faa bëri bi mu non non bëriwul ñu fa ah, bi muy préparé gi deuxième fois bi. yee moom mu ngi côté bee man maa ngi côté bi mais terewul ah, bu ñu bu bu ma fa fekkee dañuy day ñëw ba si man nuyu ma jàmm sant ak man. you know loolu dafa baax sport la. na naa mayante ngeen fa sax ndox. may na ma ndox ma may ko ndox loolu amul amul loolu. moytu moytuwoo ndoxam moytuwul sa ndox. non non ndax kenn la keneen la bu ma xamee du ma bu ko tijji. Ah, maanaam butéel bi kenn ubbiwul ko may. kenn ubbiwul ko voilà kenn. moom ko voilà. loolu dama may bu ñu dajewaat ko nga koy yóbbu. non waaw da jël butéelam man ma jël bi sama butéel loolu du dara. Ah. yaa lamb la rek yeah mais gaa yi fu ñu ko foogee du foofu. mais boobu yaa ngi ko doon xool ni muy entraîné yaa ngi ko gisee muy entraîné di entraîné di kan nga xalaat yéen ñëpp ko ëpp doole. maa ngi moom ku ëpp doole jamono bi yuñ toll nii xam nga tax laalante gu ma ak moom amagu ma ak moom contrat waaw ah. am na lu ma expliqué yeah champion nag mu ngi si yoonam tu vois waaw. mais Boy Niang parce que dañ doon dégg ay romandaat ñu naan Boy Niang rek rek du ñu bëri Boy Niang nag seeti naa ko mu ne moom loolu dugg dugg dugg ci ci yu mel noonu. duggul si lan. maanaam du bëreeg rek rek. boo ñëw bëreeg man lu tax ñu bëreeg man. non moom waxu ko de man maa ñaa ngi da ngay bëreeg booy. bam saf kay. lu tax ba làmb ma fi génn de. ñëpp laay bëreeg. waaw alam saar rek laa dul bëreeg. mais dañoo gis ay nitu booy ñang yoo xam ne dañoo dëkk caaro daan. loolu loolu du problème kooku sama rak la Lamine. Lamine waaw ñoo doon bëreendoo mbapat booy boobu. suba waaw te rakk Coly Faye la. Coly Faye sa copain la. voilà sama rakk bu ne demoon kër Boña la tarul damay bëri Boña. yow daal comme affaire bi maanaam taamis mooy nga koy def. bëri moonin la bu jeexee rek jéem a <laughs> man noonu laa mel. booy ñëw it nag daa mën a est que yow am nga ci booy ñan nga instant bi mënu wax dara. ndax aw aw la man contrat mënaguma wax dara lu ma wax dama koy tooñ. je am contrat ba signé ba pare. mais am na mbir moo xam ne damay dégg ngay wax say wax mais daa da nga tudd muy la dëgër de. la dëgër de lu tax na moom moo kaa tudd. ah mosuma dégg nga nga tudd ko nag de. non pourtant pourtant pourtant man bàyyiwuma fi benn mbër xanaa déggoo li ma la dëgg dëgg muy ñoom ñëpp bàyyiwuma fi kenn. lag nag dégg naa du yëngu la may bëri. dégg lag nag dégg naa du yëngu kaayu xale. yëngu kaayu xale ak xale yu mu doon yu mu doon dajal. xale bii. dinaa ko war ne bay jàll si koom dem sama yoon. nga war lag dëgër de. waaw nag nag combat taxaw rek nga xool. ku dul la dëgër sama war ko jéggi dem sama yoon. dégg naa du ñàkk boo respecté lu bëri. waaw mais man ak ñoom bokkuñu. ñoom dañuy téye buuxante man du ma téye buuxante bu ma téye taxaw. kon combat la ak Boy Niang pour tax jeexul. non xam nga tey jii ñoom kenn ku ne da nga entraîné te ñoom ñëw nañ def ful la yàlla suñu borom moo waxoon dinañ diil ci mais kenn ne wane nga li nga mën la dëgër adduna yëpp loolu lañ ko xamee Boy Niang moo waroon a bëri. la dëgër lu ko dañu xamee. ah xam nga ka. yaa man kay xaw day taxaw day taxaw du bëre. waaw yow xale bi nag ndegam yaa suuf na yaay dem bëri ji daan ka dem sa yoon. kon pour yow Boy Niang deful la ko war. deful la ko war waaw loolu la deful la ko war. loolu mais bu bu defoon lu ko war heure bii moo combat ak Balla Gaye taxaw na bu yàgg. Hmm. waaw xay euh, làmb boobu mooy boo xoolee moo xaw a tardé tuuti carrière am. yaa la mu jëlee ci Lac de Guiers mu jëlee sa Lac de Guiers mais bu ko daanoon sa suba nga day am avance moog Balla Gaye. mais xam nga tamit noonu la. mais yow confiance bi wax di ko dégage rek ñun ci làmb ji kuy dégg ni wax. waaw man man noonu laa mel je suis laa mel ah. pour yow yow rek a man laa noonu laa mel man loolee sama obsession tu vois man. damay ku nekk sama kanam dama naan maa la man waaw. même dégg naa la nga ne Lamine li Modou Lo yor nga soxla roi des arènes. non ñëpp moom lañ soxla mbër yëpp. Modou de ko yor <laughs> yàlla. waaye Modou ko yor ñëpp moom lañ soxla. fa mu làqu daa sore. fa mu làqu daa lan moo tax mooy bëre. xam naa roi des arènes nga soxla. kon jéem a. waaye Modou ko yor. looloo ma dese si làmb la. roi des arènes rek a ma dese si làmb. est-ce que jël ko ci Modou dina yomb. mais yàlla baax na. li si kanam réew li bët fii ak trois ans yàlla baax na lépp dina leer bu soobee yàlla. sa ko mbal Malick Niang ko doon dox. non non. su ko doon. suñ ko doxee pare nga ñu bëree mu. non bëroo wax naa ko waxati nga. na nga koo raw. moo ma raw. mais maam bëriwul ak moom. Forza nit. non ñooñu ma ak ñoom. ñëpp. bëriwu ma ak ñoom. un point au wax da ngaa raw Malick Niang ma raw wax ji jéem a maa bëriwul ak ñoom leer na. loolu nañ la def ni midi. voilà. <laughs> waaw léegi léegi nee nga bëriwoo ak ñooñu léegi Bombardier te ñoo la raw. waaw nangu dañoo dox seen combat. non xam nga guy moom duma si wax quoi. Ah. xamal tax ma si wax. Euh, nit ki euh, nit ki bu la respecté wul. am na wax yoo xam ne doo si wax. guy gi da laa bëggul. non wul. ndax tax nga ne respecté wul. déglul rek te moom. grand frère la jox naa ko cër bi bu baax a baax ndax guy gi boo xooloon wax yi mu wax yëpp kon bu mu dajoon États-Unis guy gi du ma nuyu. te loolu laay laajum bu ñu dajoon man ma nuyu ko. da ngeen fa da ngeen fa mos a daje nuyu la. non non mosuñu faa daje. non wax yi mu waxee ma dégg si muy wax muy waxee kon kii bu ñu dajoon États-Unis du ma nuyu te wallaay laajum bu ñu dajoon man ma nuyu ko tu vois te lii làmb la rek day jeex waaw. tu vois loolu la quoi sunu grand bu ñu respecté la jox nañ ko cër bi ngalawaa nañu delloo cër bi rek mu jeex daa am na ku mu jël dem ci stafu Tafatin ñu koy wax Badajon ma wax ko Reug Reug mu ne Reug Reug yegg seegul te leer na ko ne sax bu doon bëree tey ak Tafatin Tafa na koy leer na Tafa da lay daan. moom loolu la wax Badajon déggoon nañ li mu wax si contour moom ñu nag Gris 2 gis nga. damaa ko jëloon gis nga waaw yow yaa ko jëloon. waaw dégg nga lu mu wax mais gis nga entraîneur boo yore boo yore écurie da nga war a maanu maanu dafa baax si doomu aadama ndax Badajon suñu grand la sunu grand bu ñu respecté la. mais ni muy waxee ah mënoon na kaa bañ a waxee quoi si combat man ak Gris 2 gaa faral na Gris 2 dëkk mais na waxee leneen mais pas nu muy waxee tu vois kilifa du waxee noonu muy waxee waaw na ma baal nag si kàddu gi quoi waaw. wax loolu bu waxee loolu tam moom moom bërëm la yor Tapha la yor yorul rek rek yaa may dégg gi nga nu mu tuddati euh, non waxuma kuréel VIP bi non si Bada Dione laay ñëw. gis nga bawal. bawal bi kii bawal. buñ ko buñ ko ragale woon. écrit yëpp dégg nga li kii bawal laa buñ ko ragale woon. ma dugg fa. ah man man tey sama njàmba. mais nga ne bu ñu ragalee écrit yëpp kenn mën la caat. barki arxuraanu kan li ma lu sérieux la si man. mais Bada Dione na doon kilifa moo gën li muy wax noonu du wax sunu grand la bu ñu respecté la you know loolu sama yaay ah, sama yaay njaati ki ko moo sama sama maam bawal la dëkk. ki jur sa yaay. waaw ki jur sama yaay. waaw Bawol la. fan ci Bawol. Nangal. Nangal ma wala Nangal ma. altu Nangal. waaw. nga dëgg. kon kay lee tax ñu dëgg daal laal ci Bawol. waaw naa si. ah laal naa. lutte simple bi da kañ ci ñëwaat. laaj ko yàlla. ah déet yàlla man damaa war a wax moom nga toog nii nag. waaye rek nag yow kañ nga ñu man damay yëngu suba. nañ waxante dëgg. dama lay ñaanal nga ne fii di. ah waaw mais yàlla suñu borom nga xëy ma dinaa yow suba xaw ma dinaa yow. kon doo bëri si waat. non la ba léegi dama bëri si waat. wax day <laughs> ne la. instant yii maa ngi xool maa ngi xool liy defar sama carrière bi jëmale ko kanam. la ba noonu la. loolu ñun la yàlla. waa dégg ñun loolu la doon ñaan yàlla ndax euh, bi may dugg si simple amul benn mbëru mbëru wolof bu am fit dugg fa à part Malang Ndiaye kon lii dama see kontaan ndax maa ngi instant bi ñëpp ñu ngi ñëw di bëre sport wala sport tu vois lii laa doon ñaan yàlla am naa ko ba set jéem a. su ma la déggee daa bàyyi nga ko. non bàyyiwuma bàyyiwuma man sama amateur yeeg waa lutte simple ñoom samay waay samay combat dañ siy seen tànk tubéy ñoom ñëpp. am si ana soxna si. non amuma soxna amaguma soxna loolu sama na fi sa jabar ba ne takkee nga Fass Mbao. biir la. yaa may biir laaj ma si làmb. kon takk goo soxna. non déglu boo may laaj. la. man non dañ ko annoncé woon. dama lay déggoo fi ma wax ne. loolu sama biir la. loolu sama biir privé la yoonu kenn nekku si concerné wul kenn. voilà you know loolu sama but privé la quoi mais bu doonoon dëgg xam nga bu doonoon dëgg xam nga looloo gâchette mu jeex. looloo neex. bien waaye Reug Reug ngi Modou